ami internetu AG Prod TV ñu ngi amaat contentement ak mbégte bu baax a baax rek di dajeeg yéen ci seen info du jour waaye nag képp koo xam ne rek euh, abonné goo ci li nga xam ne moom moo di seen bi ñu lay wax rek nga daal di daw abonné te activer li nga xam ne rek moom moo di cloche de notification bi ngir rek nga daal di mën di am suñu ay vidéo à temps tey nag li gën a fes ci xibaar yi bokk na ci làmb ji nga xam ne rek moom moo daal di doxoon ci diggante Siteu ak Papa Sow ne ni démb la woon fële ca arène nationale ca Ndakaaru euh, combat loi boobee lee nag gannaaw ba ñu ko taxawalee rek mu daal di amoon ay jafe-jafe maanaam ki nga xam ne rek moom moo di Papa Sow daal cay daal di jëlee ab gaañu gaañu ba taxoon rek ñu renvoyé woon boobu lee combat combat boobee nag démb rek lañ ko daal di mujjee bëree fële ci arène nationale doxoon ci diggante Siteu ak Papa waaye nag combat boobee lee kii di Siteu moo ca rek daal di mujjee am ndam nege ni démb woon fële ca arène national ba ca Ndakaaru Siteu nag daal daan rek ki nga xam ni moom moo di Papa Sow ginnaaw euh, jël bu set wicci moom Papa Sow nag tey nag daal na xam na ne rek gannaaw combat bi doxoon ci diggante digganteem sit te euh, tey nag dafay daal di bàyyi rek li nga xamante ni moom moo di làmbu mu nekk information bu xaw a doy bu bett nit ñi waaye nag moom Papa Sow daal dina xam na ne rek moom bettu ko ndaxte nag xamoon na ni combat bii nii euh, mooy mujjëlam bi combat boo xamante ni da koy daal di amal rek fii ci diwaanu Sénégal waaye da koy daal di amal rek ci li nga xamante ni moom mooy làmbu waaye nag moom Papa Sow moomee gannaaw ba nga xamante ni waxul woon kenn ni dafay bàyyi làmb waaye nag nee na ñi nga xam ne rek ñoo ma jige woon ñoo xamoon nii sama digganteeg Siteu bu jeexee rek damay daal di arrêté li nga xamante ni moom mooy sama carrière làmb ndax samay staff ñoo ko xamoon ak ñi nga xam ne rek ñoo ma daal di waaye du keneen koo xam ne rek taxaw na ah, daal di koy xam waaye nag moo tax mu daal di biral ni xam ni dafay daal di bàyyi rek nga yaa xam ni moo di làmb gannaaw nag ba nga xamante ni rek def na carrière bu toll ci 27 ah, combats mu daal ci am li nga xamante ni moom mooy 21 victoire ak 6 gannaaw ba ko Siteu daanee démb nag moom Papa saw moomee lee daal di xamal ne rek dafay daal di arrêté li nga xamante ni moom moo di carrière eh, ci la làmbu mu ni combat bi def na ci lépp loo xamante ni rek waroon na ko def ngir am ndam rek def na ko ci combat bi su dee entraînement def na ko ci su dee mystique def na ko ci su dee tamit toppatoo boppam it def na ko ci ba mu mat sëkk ndax mu doon ñaan rek mooy mu daal di terminer en beauté ak victoire boo xamante ni daf koy daal rek servir dara ci carrière waaye nag xëy na nii la ko yàlla bëggee woon eh, waaye nag nee na moom mu ngi ñaanal bu baax ki nga xam ni moom moo di Siteu ndam li jikko et que mu def benn carrière bu ama am solo ndax champion la tey it gis na li ko topp ci mbooloo nit ñi bëgg nañ ko Sénégal bëgg na ko kon nag du def rek lu dul ñaanal ko ndax rakam la te rakam rek lay musa doon moom Papa nag daal di xam ne rek mu ngi jégalu Sénégalais yëpp rek ci annonce boobu la di xam na ni dafay daal di bàyyee làmb ci diwaanu Sénégal